pas beaucoup parler. On va tout simplement souhaiter la bienvenue aux autorités ici présentes. Souhaiter la bienvenue aux, aux honorables invités. Souhaiter la bienvenue aux enfants, surtout aux enfants pour qui la journée là est organisée. Les enfants constituent le futur de demain. Donc, tout ce que nous faisons pour les enfants, on va on ne va jamais le, regretter donc investissons euh, sur les enfants. association bi ñu le 25 février 1999 Bobata, madame Gay, Rama Kamara, présidente bi man organisation c'est après que j'ai eu la présidence bobata ba tey nag nous avons AG boo waxee ñu ne Nous avons jël à vie ñun yaay xale Nous li ñuy yëngu dafa bare ku ne ndax yaay mooy amba mooy euh, accoucher mooy nampal mooy yar ñu ngi ci volet yëpp bu dee éducation comme niñ ko waxee nekkoon naa fi ci APE bi depuis 84 école bii moo tax ma sañ fee yaatu doxe fi nu ma neexee après laa jël CGE bi deux ans de mandat de deux ans successifs ma léegi maa yor APE bi bu ñuy wax éducation def nañu ak partenariat Euh, PAMECAS ak siif ay partenariat yoo xam ne dañuy jël orphelin yi may leen bourse euh, cas sociaux yi même chose ñu intégré leen à l'école ci sunu euh, sensibilisation sunu coobre ak sunu doole bopp. comité de santé bi ñu ngi ci semu élève bi mutuelle de santé bi bu ñu ñëwee ci environnement ñu ngi ci ndax bu set setal jotee balaa école di ubbi ñun ñooy yor. entretien école quartier bi ainsi de suite bon ñu ngi ci loisir ndaxte tamit bu vacances nous dañuy jël xalé yi néw nous muy jirim ak néw yi doolé yóbbu leen euh, de vacances dem nañ fi Gorée dem nañ fi toubab dem nañ fi yeen ak ñom lépp ci suñu doolé bop ah yalla nak bu la natto da ngay xamné yalla da la natto ndax ci kër yi kuy papa yaay rek lay bu safaan ba amee sax yaay la ñuy wax bu xale yi di foo di saaga sax yaay la ñuy wax nattu la bu ñu yàlla teg ñu tegoo koy di sant may gërëm di sant teewaay bi assistance bi parce que olof Ndiaye nee na mun nga louer bâche louer chaise mais nit kenn mënu koo louer ndax bu ñu toppoon euh, euh, programme bi niñ ko waxee kon waxtu bi fekk na ñi jotoon ñëw ba dem yëpp ñu ngi fi teew mais ngant day am dog-dog day am comme ni madame la préfet wax sànq ak CRD yu bare ci tabaski bi. moo tax ñu yebal ñu sunu ministre représentante ministre de la femme muy madame Diawara Ndeye màgget Dieye nekk p APDC ci commune bi ki gën a nekk sunu kilifa nag muy Latouf moom mi yor euh, ONG CONAF ba pare jiite ñu ci comité départemental de la protection de l'enfant directeur doyen Diagne mi nga xam ne mooy directeur école bi yaatal ñu monsieur Ndong di directeur imam 3 moom itam déplacé na ustaas yaangi ni chapeau ak kat yi nga xamne ñom ñep ñëpp dañoo bàyyi seen soxla depuis 7 h et demi huit heures ñi ngi fi pour japp ci bés bi pour mu neex man xalé ma ñor ku xam kuma ma gis kuma xam xamne xalé ma ñor parce que xalé moy doon avenir u c'est un trésor de la nation mosoo tëb rek gis ku juddu rek nekk mak il faut nga jaar ci xalé moo tax ñun xale yi moo ñu ñor seen bien-être la ñuy dox seen promotion la ñuy dox seen prévention la ñuy dox ak seen protection prise en charge bi nag kilifa yaa ko yore muy ñi ci nguur gi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. L'association yu Xale yi est en train d'organiser une activité importante qui rentre dans le cadre de la Semaine nationale de l'enfant mais de la journée de l'enfant africain, Dans le thème L'action humanitaire en Afrique, les droits de l'enfant d'abord. Ça veut dire quoi Ça veut dire aujourd'hui que ce qui est fait et doit être fait pour les enfants doit être une priorité pour les populations, doit être une priorité pour notre État, mais doit être aussi une priorité pour les communautés. Et pour cela, nous remercions encore l'association Yahya Khalei de nous avoir permis, au nom du comité départemental de protection de l'enfance, dont la présidente Yahya Khalei est membre, et présidée par le préfet de Dakar, vous dire encore merci. Merci, mais nous disons qu'aujourd'hui les populations doivent prendre leurs responsabilités par rapport à la question de l'enfance au Sénégal. Vous avez tous vu ce qui est en train de se passer dans ce pays, où ce sont les enfants qui sont à longueur de journée dans les rues. Or que nous avons tous une responsabilité par rapport à cela. Ces enfants sont mis dans la rue par les adultes. Il faudrait que les adultes qui les mettent dans la rue les retirent de la rue. Donc la journée de l'enfant africain qui est célébrée aujourd'hui au niveau de l'association Yayo Khalei est une chose à perpétuer. Parce qu'on pense que l'école est la base aujourd'hui de l'éducation des enfants. Et si c'est la base de l'éducation des enfants, il faudrait qu'on se mette tous autour de l'école pour qu'aucun enfant ne soit plus dans les rues du Sénégal. Et à ce niveau, on remercie encore, au nom du préfet de Dakar, au, niveau nom des membres du comité départemental de protection de l'enfant, l'association Yayo Khalei. d'extrait ou bulletin de naissance. Eh ma soeur, on me dit sénégalais et pourtant je n'ai pas été déclarée à la naissance. Hé eh, hey, mes amis, pourquoi vous vous lamentez Pourquoi ce découragement Vous oubliez que vous n'êtes pas les seuls à vivre ces moments obscurs, difficiles, voire fatals. Moi par contre, je suis bien sénégalaise, mais avec de faux extraits. Oui, de faux extraits. avec cette situation, pourrais-je continuer mes études Non, non. Pourrais-je faire mon examen Non, non. Pourrais-je un jour m'asseoir dans les bureaux des entreprises à l'abri du soleil Non, non, non, non et non. Chers parents, aidez-nous, déclarez-nous à la naissance. Permettez-nous de vivre pleinement notre citoyenneté en ayant un bon médecin. Merci. wafis fis li ngay def ni nak mbedd bi mbedd bour mbedd nga wax de est-ce xam nga luy bour bour bour la bour kan moy bour legi man mbedd bi dal mbedd bour la lo neex def wa papa lu xew yo gisso ki nan ba pare di fi sani sachet bi cho tëw tëw tëw tëw tere sama sama mi waa ti ti ci sachet yi laa ci doon wax ah ci sachet waaye kii lu muy def nii jaadul de. waaw garaawal xam naa rek léegi dinañ am pexe. salaamaaleykum mbooloo bi ñoo leen di nuyu yéen ku ci nekk seen tur ak sant comme monsieur Faye nu mu ko waxee rek man fii laa defee sama cursus scolaire. sixième ba CM2 fii laa amee sama entrant sixième door a dem Blaise Diagne kon bo école bi buñu amé amee fête damay contente pour participer si parce que ñom tamit dañoo contribuer ci sama réussite ci cursus scolaire merci léegi nag dañ leen présenter ay secouriste junior lo xamante képp ku nekk waajur wala bép xalé ci biir école comme ci biir kër war nga mën a geste de premier secours yi nga xamné xalé yi ñong koy def ngi ci école biscuiterie waaye tey dañ fi représenté école biscuiterie tey pour ñu def leen secourisme junior. mooy méthode cuillère à trois méthode de dégagement en cas d'accident. mais si la victime est accessible d'un seul côté moom ngay pratiquer voilà un accident de la circulation secouriste en position faire respecté wu. fekk une victime bi ci trottoir bi da koy defara position La position bi ma def nii mooy position i la tudd aca secouriste en position êtes-vous prête êtes-vous prête engagé Êtes-vous prêt Levez. Plaquez. Debout. Avancez. Alt. Pivotez à droite. Pivotez à droite. Avancez. Pivotez à droite. Pivotez à droite. À genoux. Rabattez attention pour poser poser C'est une méthode cruelle à trois méthode de dégagement d'une victime euh, d'un accident de la circulation léegi méthode méthode de dégagement par les poignets C'est une méthode de dégagement mais victime kenn peut ko kenn Si ko déplacé soo la victime il y a un risque de sur accident mais bu un risque de sur accident victime il faut monter de nous. Faut secours, secourir ba nga sapeur sapeur mais c'est geste de premier secours Si victime bi gravité bu mu am parce que c'est nga geste de premier secours Je da position bu En position. En position. Vas-y. Méthode de dégagement par les poignets. Vous avez vu vas-y. Tire. Merci. Au suivant. Ça, c'est méthode de dégagement par les poignets à un secouriste. position latérale de sécurité la tamit position le temps que xaar les secours Madame les sapeurs ça va libération des voies aériennes bu të que victime bi victime bi rek da Je ceinture col ak ay dal yooyu yëpp da koy dindi pour mu permettre victime bi mu mën a respirer bu baax. position latérale de sécurité. waaw lii day permettre nu mu ko def nii day permettre day faciliter respiration victime bi nga xam ne nii dina mën a même vomissement bu ñëwee au lieu muy dem day génn facilement parce que dafa di dafa basculer la tête en arrière pour faciliter les les vomissements en attendant l'arrivée des secouristes ou les sapeurs pompiers je vous dis. Jogal vas-y échappe Sème. échappe Sème, échappe contre échappe li loxo bee damm léegi da koy defaral stable simple pour pour ah, le temps te le temps que mu koy yóbbu hôpital jarul bu bul teg defal rek stable simple no provisoire manam loxo bi fii moo damm loxom fi mo dam day da kay defal ni pour mu baña a euh, gravité bi leg queue de cochon leg bo le amé sen xarit bu dam rek mun ngeen ko defal li leg bo len ko defal li ba paré lu ci dess yobou ko hôpital ñu tabax ko ah léegi écharpe contre écharpe lii mooy écharpe simple Les échappe contre échappe manam qui double fracture lam au niveau du bras et de l'avant-bras fi ak fi ñoo damm bu nekkee ñaar yëpp a nak nag ñaar yi lay ñaar lay utiliser échappe contre échappe lii mooy échable contre échappe parce que ñaar yëpp a damm léegi boo ko defaree nii ba pare mënatul amaat beneen fracture nga yóbbu ko hôpital les spécialistes ñu def seen liggéey dégg ngeen ah merci li lañ leen indi woon tey. man appel laay lancé je lance un appel ci euh, maman yi ak papa yi parce que jamono bi ñu toll dafa nekk jamono boo xam ni c'est un peu dafa dañu euh, booy li journaux yi wala nga yu actualité da ngay xam ni les xale yi élèves yi ils ont des problèmes.